aousbillahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim euh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñëw fii tey ñun en tant que membre mouvement Nittu Dëgg man ak Khalifa euh, Diakhaté membre mouvement Nittu Dëgg man Abdou Karim Gueye li ma xam ci Karim Xrum Xax membre mouvement Nittu Dëgg valeur euh, ñëw tey def dox seet seet suñu mbokk jullit dox ñëw pour nemmeeku suñu mbokk yi nga xamante ni suñu njiit yu bon yi kasara yàlla yu bon yi dañuy jiital seen alkaati yi dal seen kaw comme niñ ko waxé station rek euh, ñu ñu fekk nak ñu japp suñu oustaz bi nga xam day jàngale alxuraan su ko waxee xamna déggin bi du neex ci wax bi waye dañ ñëw dafa melni ñun dafa melni ni Seydina lañ japp tej ko bu ko do ndax ku ne xam nga ku ne bëgg na Seydina Mohamed rek bo ne bëgg nga ko sallallahu alayhi wasallam da nga wara bëgg jàngal ko alxuraan ndax sallallahu alayhi wasallam mu ne mu ne ñi gën ci yeen mo ñu jàng alxuraan bu nopi diko jàngalé kon man ñeme mëna sañ taxaw waat ni ki mo gën Macky Sall ndax Macky Sall jang alquran jangale ko saatu alafat yele wax feru sa idi jangale ko man yemee naa waat ni kii moom gën man ndax man jàng naa li ma jàng mën julla man te ko man mën na sañ waat ni Sénégal bu ñu tànnee 100 sénégalais la mën naa ni 75 wala 75 bi cent ko alquran ni yi ñoo leen gën parce que ñom bari wuñ kon bokk na ci li tax jull bu nek xam ni saa boo jógee ne ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu an muhammad rasulullah ngani yow da ngay sérén yalla kenn la ta rasul mo yonentam rasul amul dul alquran alquran moy diine alquran moy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam Macky Sall nag programme daf ci bok toroxal ak xex diine wala nako ci Charlie Hebdo ñuy caricature sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam diko ñaawal mu dem ca da rafet ay oustaz yu warata ba léegi ñu ko defan ci télé defan defaan Macky Sall wane na ci ba bu ñuy mujj sax France mi ñuy mujj ne dañuy blasphème manam dañuy ñàkkal fa di lepp lo xamante ne kat day day day day taxawal diine rawatina sunu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam sallam Macky Sall dem fekkiwaat waa France ñun ñi wote fi obélisque wuy si ñom nak nakar, am tis bu metti amit yëgal bu ñu yëgal sénégalais ci citoyen parce que diine bi l'islam li taxa egg fi ay yambar dañ ko yeggalul fi ñako sos bu ñu ragal ba ay yambar ba ay yafus l'islam du egg si fii loolu il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam ni yeen santu leen dara dañ leen ñi dañu xeex xare ba ñu ray leen seen biir ñi Serigne Touba dañ ko yóbbu fu ne ndax diine yeen waar rek dekat santu santuñu leen dara lu dul ngeen toog ci yi wax rek li diine wax da ngeen fekk lépp yem loolu sax mu ñemewu leen ko def ñemewu leen jàkkaarloo Macky Sall ne ko mu daara yi muy son ñemewu leen jàkkaarloo Macky ne ko mu bàyyi daara ndax man pour man ku laal sëriñu daara Seydina Ahmed nga laal salaa salaam pour man ku laal alxuraan Seydina Ahmed nga laal salaa salaam léegi nag problème mooy ñoom li ñuy critiquer maanaam li ñuy wax ni moom la ñuy sikkee daara yi li ñuy wax ni moom la ñuy dalee ne zéro enfant dans la rue am ay budget 15 milliards jox leen ko ñoo dañuy xeex xale yi nga xam ne ñu waran ci bi ñoom ñoo dàq yalwaan xale yi ñoom ñoo gën a bon yi te li ci metti mooy ñooñu ay franc-maçon lañ gëmuñu yàlla gëmuñu yonent gëmuñu Serigne Touba gëmuñu Serefal gëmuñu dara loo xam ne day jëm ci wàllu diine respecté wuñ ko toppuñ ko ba pare yemuñ ci loolu ñu ñëw di songu nag suñu sëriñu daara yi ñëw di topp suñu ndongo yi suñu ndongo yi jàng alxuraan suñu doom yi leen tëj di tëj sëriñu daara leen dóoba leen gaañ ñun ñu ñëwoon pour naqarlu loolu leen wax ni nag du yem foofu du yem rek si ñëw taxaw wax déedéet ñun nitu dëgg fa la dañu programme benn bés boo xam ni bés bu mag lay doon date bi ci dellu si xam naa ne ak média bi parce que ku ñëpp jiitu xam mais du yàgg dans une semaine deux semaines dañuy def daje bu mag boo xam ne récital de Coran lay nekk ñuy woo bépp sëriñu daara bépp sëriñu daara ak képp ku mokkal alxuraan même su fekkee benn saar nga mokkal sax nañu dajee woon fële ca place Sidy Lamine Niass obélisque ma tuddee ko place Sidy Lamine ñu naan ko place de la nation ñu daje fa ñun ñëpp ñu woote ku nekk indi sa siyaara indi sa masque indi yi ñu toog fa ku ne jàng alxuraan ñu naqarlu wane suñu bopp ñu wan Macky Sall ne ko danga ngaa jiite réew moo xamante ni seen lan la bëgg a ñaar seen loxo ñoom gëmuñu loola wan ko ni ko ñun sénégalais yi bëgg suñu doom jàng alxuraan ñun ñi nga xam suñu doom yi ñooy jàng alxuraan di yalwaan yi parce que li tax xale yi di yalwaan mooy état bu joroon 15 milliards mbaa 20 milliards yi muy jël def ko ci daara yi kon daara yi du ñu yalwaan yi daara yi kokki 4000 xale ñoo fay jàng 4000 laa la waxuma la 400 de 4000 xale alxuraan ay xale yu ndaw ñooy jànge daara yi kokki am réew boo ci génnee 4000 xale la fa dese kon lan moo tax Macky Sall ak nguuram gu bon yi ak njiitam yu bon yi ak Ndeye Saly Diop Dieng ak Joxombaay Diouf xam ni ñu ko waxee noonu ñoom ñooñu jóg na dañuy xeex diine l'islam ne dañuy xeex dañuy xeex alquran xaalis bi nguur gi di sàcc ñu koy foowee mënuñu ko jël subventionné daara yi comme école école école école française ah. école française ni mu mel buñ taxawoon organiser ko daara yi organiser waaye déedéet ñun ñoo réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans lañ cinq pour cent gëm jurit ñoo si ëpp te julliti alcorane buñu bëgg seen doom yi jàng ko alxuraan bi bëgg jàng amuñu sañ-sañ ñu taxaw jàkkaarloo nguur gi ne ko bëgguñu français alcorane lañ bëgg wala alcorane di moy jiit français bi so ko yegsi loolu nag ñu tuddee valeur day taxaw bis mu tax déclaration di wo Sénégalais ko ni ma ko waxee sànq obélisque incha lañ jëm té dañ koy respecter sans autorisation amul dara dañ dem nak def déclaration normale parce que dañuy ñaanal sax yalla jindi jëndiwaale fi mbass bi ndax mbass bi ñom seen yu bon yoy ñu la alcorane rek ko fi indi nak bis bobu nak moy bis bo xamni ci lañ leen wo ñoom ñep ñu ñew ñu toog ko wane suñu bopp bàyyiwuñu mag bawuñu jigen bawuñu góor bawuñu xale bawuñu daara yi bawuñu serigne diñe bawuñu kilifa diñe bawuñu kenn ndax ku dóor ki Seydina Muhammad nga dóor alayhi wasallam bo la ko bëggee dégg dëgg la su nga ko bëggul dégg dëgg la ndax alxuraan ñi ko mokkal ñoo jëmmal alxuraan ñi ko mokkal ñoo koy taxawal ñi ko mokkal ñoo koy ñi ko mokkal ñoo dundal ñi ma ko alxuraan bu fi nekkatoo Seydina Muhammad nekkatu fi xam leen loolu te muy dëgg la mooy kilifa diine bu nekk ci daaraam moo xam mi ci këram moom taalibe yaa koy wër na xam ni Sénégal suñu président Macky Sall mi ngi toroxal alxuraan ci dëkk te ñun duñ ko seetaan nañ jàkkaarloog moom nag daje bi nag incha allah obélisque lay doon fële ci place de la nation ñun ñu tuddee ko waa nit dëkk ci seen biir ñëw loolu moo doon wax ji tey leen jégal wa sallallahu ala rasulillah bi kulla balaay lépp lu doon ayib nitu caaxaani fexe nañ ba jël ko bëgg koo dugal ci diine bi indil nañ diine lépp loo xam ne du jëriñ te nañ xam ne senegal dëggu dëkku diine la sëñ Tuubaa dane لا تشتري الدنيا بأخرى يا فتى من باع النور بالدجى فسيندم bu leen jël àdduna bii nga xam ne am poñaxit la day jeex di ko jaaye seen alaxira bu ngeen ko defee ëllëg Yalam Yajin Tanya.